bismillaahi rahmaani rahim lii ab net la boo xam ni maa ngi ko jëlee ci euh, sëriñ Abo Mbàkke imaam fekk sëriñ Jiili sa euh, mu sëñ Busa Awa Saw moom ko njëkk nettali ne ci sëñ Abo la ko déggee waaye ginnaaw gi may itam ma laajalaatal ko sama bopp sëñ Abo yàlla na ko yàlla dolli njëgal ak yërmaande muy waxaat ma lii ne ma dafa am bis Euh, sëñ Abdou Xaadir ne ko ñu ànd nee na ñu ànd dugg ci oto bi jël tëli gare bi xamul fuñ jëm nag nee na ci yoon wi sëriñ Abdou Xaadir radiyallahu taala anhu daal di ne ñoo ngi jëm ci barab boo xam ne fa ñaan mu nangu nee na dem barabu sëñ Bàkki Busa radiyallahu taala anhu kon barabu sëriñ Bàkki Busa la ba lu fa waay ñaan mu nangu te loolu ci làmmiñu làmmiñu sëriñ Abdul Xaadir radiyallahu taala anhu la jóge moo ma ne sëñ Abo moo ma ko nettali fekk ne sëñ Jili bu sa moo ma ko njëkk a wax ne sëñ Abo la ko dégg waaye man su ma déggee xisa dama koy topp sëñ Abo wax na ma sëñ Jili bu sa wax na ma ko gëm naa waxam waaye teewul damaa gisaat sëñ Abo laaj ko laajaat ko sëñ Abo jaaraat ak man fii hmm, te nag euh, man de bañ ma ko nettalee ak ba léegi. maa ngi dem barabu sëñ bàkki bu sax waaye li ma fa ma a ñaan teg naa ci sama bët wasalaamualeykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu.